cela, la famille espère que tout le monde La leçon qu'on doit expliquer aujourd'hui, c'est le pronom Y. pronom Y, moo njiital tey ñu ñëw euh, leeral leen ko expliqué na ko bien avant balaa ñu dugg ci continuer la leçon ñu leen rappelé woon ngeen abonné ci seen bi pour euh, ngeen mën a jëriñu baax baax ci chaîne bi ngeen mën euh, def seen i yi itam positivement ngir. gën ñoo may yokk courage euh, ñu gën a améliorer li nga xam ne moom mooy euh, scène bi euh, tey leçon bi ñu concerne ni ñu tuddee le pronom Y lan mooy rôle moom moom pronom Y lan mooy position kañ lañ ko utiliser ak kañ lañ ko dul utiliser lan mooy li ñu yitteel tey jii ci pronom Y j'espère que c'est clair alors quand on place le pronom Y pose une question. Une remplace mon pronom Y et remplace un complément de lien introduit par une proposition A. En, dans, sur, chez, extra, sauf de. ne remplace benn complément circonstanciel de lien boo xam dañ ko ajouté euh, <coughs> jaaree ko ci benn proposition benn mu nekk A mu nekk en mu nekk dans mu nekk sur mu nekk chez yooyu ñooy propositions yi benn cooy ñuy jaaraat kii ajouté moom complément circonstanciel de lien bi pronom Y rek. des fois mën nañoo remplacer ko waaye préposition yi même des de du ci bokk exemple elle habite en France moom France la dëkk en France ki nga xam ne loolu comme la circonstance de lieu la kon bu ko bëgg remplacer day wax yii il y habite avec sa fa la dëkk bi dafa euh, remplacer li nga xam ne moom mooy comme la circonstance de lieu bi nga xam ne moom gis ci première euh, phrase bi ci question deuxième exemple tu vas à la gare mais da nga dem ci gare ba foofu itam porno Y dañoo remplacé ko UIA JV antaxi dama fay dem kon J Y gis nañ ñu remplacé à la gare bi di complétion culturelle de lieu bi loolu leer na loolu bokk na ci nga xam ne mooy position di rôle porno Y. deuxième étape euh, ci si nga xam ne moom la ñuy utiliser porno Y on utilise porno Y avec les verbes qui se construisent avec A verbe plus A nee wala Y ba tey koy jëfandikoo mu ànd ak yi nga xam dañ leen di dañ leen tëgg ñu a verbe a complément circonstance complément d'objet indirect induit par la préposition a complément d'objet indirect boo xamante ne si ni euh, boo xam ni euh, dañ ko assuré jaare ko ci préposition a hmm. nga xam ni complément d'objet indirect mooy xam nga verbe boo xam ni wala complément boo xam ne day euh, jalgati mhm. day jalgati ci benn préposition à travers préposition jouer à penser jouer à penser à croire à réfléchir à ainsi de suite verbe yooyu yoo xam ni dañ leen construire ñu daal di ànd ak a mooy verbe a yi moo waxoon yooyu pronom y day ñëw daal di koy euh, daal di ànd ak exemple tu crois à la à l'astrologie mais bu muy astrologie benn xam-xam la mais kon non je n'y crois pas te gëmuma ko je yi crois pas gëmuma ko kon da nga gis ni à l'astrologie ci premier exemple ci exemple nga ne je n'y kon Y bi dafa remplacer euh, li ñu waxoon ci définition bi mooy verbe avec ah muy croire fer bu ñu construit muy croix bi avec moom la ñu war a daal remplacé na pône Y bi kon loolu defe naa leen du aju ay revenir on utilise Y ba tey ba tey ñoo ngi ci euh, la définition bi mais remarque nag ci li ñu wax quand le complément est un être inanimé animé on utilise les pronoms la préposition A remarque am na ci foofu su fekkee ne complément bi di complément de indirect boobu. dafa nekk benn être animé mooy benn être vivant la lu am xel kon ba pronom tonique la ñu jëfandikoo mais pas ah ñuy jëfandikoo Y pronom Y du ñu koy utiliser foofu waaye pronom tonique la ñuy hmm. mais bu fekkee ni comme complément bi dafa nekk être vivant bu am xel pronom tonique mooy yan les pronoms toniques ce sont les pronoms toniques moi toi lui elle nous vous eux elle ce sont les yii la. defe naa ni loolu la nga xam te ne si nii euh, yéen ñi bu fekkee ni Pogba dafa nekk être vivant am na am xel. Mm-hmm. j'espère que c'est clair exemple bi mu indi la ko ci euh, li nga xam ne moom mooy pronotonie gi bu fekkee ni nga xam ni am xel lañ nga xam ni prono Y du ñëw waaye yëriñ jël exemple il parle à sa femme. Enfin, donc oui elle parle à elle kon doo wax oui elle y parle waaye nga elle parle à elle day wax moom lan moo tax parce que complément bi di sa femme da ngay gis ni euh, être vivant la bu am xel femme moo tax bu di am pronom tonique ngay jël pronom tonique ngay jël au lieu ngay jël pronom y kon foofu dañ ci déggee ne pronom y am na foo koy utiliser mu remplacer complément bi mais par contre. am foo utiliser hmm, am na foo xam ne doo ko fi utiliser yi ngay jël muy leer euh, neen exemple je pense à mes amis waaye sama xarit je pense à eux kon loolu nga pour noter ngay jël parce que ñoo ngay xalaat ñooñu ay ay kii lañ ay être animé lañ être yu am xel kon e ngay jël e ñu bokk ci li nga xam ne mooy comme ni nga gisee ñu ñëw ci ñu ñëw ci la négation la négation se place avant et après le bloc formé par les pronoms et les verbes pare ci négation bi dàq bi kon pronom Y bi day placé wu ci kanam ak ginnaaw bloc bi nga xam ne ko euh, yi nga xam ne pronoms yi ak verbe bi ñoo ko formé alors loolu dina leer ci exemple tu vas à l'école da nga école kon non je ne nu fa dem foofu ci négation la nga xam ni. jeunes yi kan Y bi wala négation bi liy dàq moom mooy jiitu wala mu place avant et après la ah bi ñii vingt pas. defe hmm. naa loolu la tu penses à tes problèmes nga xam ci say problème non je n'y pense pas je n'y pense pas xalaatuma ci comme li ma waxoon ci premier exemple rek bu fi gisaat. mooy négation bi mooy préparation avant et après le verbe farmé par le pendant et les verbes j'espère que c'est clair